jaageen jëf mbokki téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel quatrième édition foire internationale bu kaw Kaolack di amee fii ci cœur de ville bi tey nag xibaar yi dañ koy jagleel bés bi nga xam ne moom lañ jagloon wàllu investissement ndax foire bi nekkul foire boo xam ne jënd ak jaay la rek waaye day am li nga xam ne moo di ay forum yu am solo tey ji nag ñu amaloon forum boo xam ne dafa ko jagleeloon wàllum investissement jëwriñ ji nga xam ne moom lañu dénk wàllum investissement di Khoudia mbay bàyyi ko Dakar ànd ak délégation ministérielle ñu ñëw amal forum boobu ci teewaayu euh, ki nga xam ne moo jiite chambre de commerce bu Kaolack di Serigne Mboup ki nga xam ne nag moo di ministre bi di Khoudia Mbaye yëkkati fi kàddu yu am solo yu jëm ci wàllum investissement waaye tamit secteur privé bi seen taxawaay loolee sax sargal na ci ki nga xam ne moo di Serigne Mboup saa su ne taxawaayam jëm ci euh, wàllum investissement ci Sénégal rawatina ci dëkk bi euh, di Kaolack ñu ànd teewlu kàddu yi nga xam ne taxtaan nañ ko ci Khoudia Mbaye di jëriñ yi nga xam ne moom lañ dénk wàllum investissement. am na lu may gis nii nga xam ne bu sama waa service yi commencé ci la ñuy doore muy naka la ñuy fexee ba investissement yi nga xam ne dafay ñëw ñu ñu ñu jubale leen ci territoire yi maanaam PSE am na euh, mooy programme bi tënk lépp li nga xam ne président yéene na ko am na ci lu mu jot a dawal lu bari loolu mu jot a dawal jural nu li nu tuddee croissance te ñu bokk ci réew réewi àddina yi ko gën a doxle waaye mu ne pàcc bi mu jiitaloon jeex na dañuy dëgmal beneen beneen boobu mu farataal ci ay xëyu xale yi farataal ci jàppale jigéen ñi ci financement yi farataal ci itam suñu dénd bi ñu defar ko bu baax ndax mbay mi ak li mel ni moom yëpp muy napp di di càmm euh, euh, yëwan yeneen ak yeneen yooyu yëpp mu ne daf ko bëgg def ci bii mu dëgmal mu laaj ñu gunge ko waaye mu wax itam ne secteur privé bi maanaam sëriñ ak ñi muy àndal ñi mel ni moom nañu ci dox ay jéego yu dëgër parce que boobaak léegi ñu ngi góor góorlu wala boog jigéen jigéenlu te euh, dañu dem ci dañu dem ci euh, euh, mu doon lu nga xam ne état rek mooy jël dooleem wuti jëggaani ay ndimbal ñëw def ci baax na naam ndax jur na dara waaye buñ bëggee mu wéy te dëgër ñii nga xam ne ñoo moom seen koomu bopp macha allah ñu jàpp ni mën nañ seen bopp te ñoo ko fàggul seen bopp loolu seen xel dal ci ñu dugalaat ko ci réew mi muy ñoom wala muy ñu leen di jàppale loolu itam dafa am solo ba nga xam ni man ci loolu yàgg naa ci waxtaan ak sëriñ ete li ñu daan wax mooy que dafay baax man dama leen daan naan dangeen di am fit da ngeen di ñeme song affaire yi mu naan ma fit am na fi waaye kay xanaa lenn li ñuy def kenn ku nekk am sa fitu bopp jël sa yoonu bopp loolu lañuy ñuy xaw a wàññi te boole sunu ay doole man koy yërmande yàlla nag mi ngi ci mbooloo loolu bu ngeen ko defee daa ngeen ci gis daa ngeen ci gis yokkute boobaak léegi ñoom ci loolu la sëriñ di dox parce que man bu ma sañoon te loolu wax nañ ko ku dul man wax na ko ku mel ni ministre Aly Ngouille Ndiaye wax na ko itam ci conseil des ministres suñu sañoon suñu seen euh, SATEXCA bi war a mën a nekk zone économique spéciale ndax état dugal na fa alal yaatu na mën na nekk loolu dañuy wéy di ci xalaat pour xool naka lañ leen ci gunge. mu nekkoon kàddu yi nga xam ne Khoudia Mbaye euh, jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllum investissement yëkkati na ko ci forum bi nga xam ne moom lañ doon amal ci chambre de commerce bu Kaolack ci forum boobu la ñuy resté ba léegi ndax ki nga xam ne moom moo di euh, njiital chambre de commerce di Serigne Boub taxawal fi foire internationale bu Kaolack moom it am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko sant ki nga xam ne moo di ministre bi ci taxawaayam jëmee ci foire b waaye kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko mu jëm ci wàllum investissement ak ñoom ñi nga xam ne dañoo nekkee ci secteur privé bi seen taxawaay jëmee ci réew mi ak ni nga xam ne noonu lañu mën a def ba suqali mboole marché yi nga xam ne dafa nekk ci senegal ba màgg ñu ànd teewloo kàddu yi nga xam ne Serigne boobu yëkkati na ko. tey jii sa ñëw bi daf ñuy motiver te foire bi mi ngi jur leneen ndax jur na yu baree bari léegi collectivités locales yi maires yi ñëpp ci bokk ñëpp ci bokk. Euh, jur na leneen loo xam ne nii danañ ci liggéey muy lu ñuy wax journée économique des terroirs dañ la ko présenté mooy d'accord Kaolack mu ngi fi mais ñun régional pour pourquoi commune bu ne doo am sa bis ci année bi nga suqali sa économie say doomi réew ñëwaat nga fexe ñu xool potentiel économique yu fan a nekk wala ñu bokk ko par département mu tudd journée économie des terroirs mooy lan luuma yi ngay dégg rek la ñuy moderniser luuma semaine la ñu def ko annuel mais gën koo moderniser ba mu nekk luuma bu mag a mag a mag kon nag encore ñu ngi lay gërëm tey xam nañ ne yaa ngi liggéey président la république kon nag ci turu élu yëpp ñu ngi lay gërëm la san ñun bi yoon amuñ benn doléance bi ñu lay wax lu ñu lay wax rek mooy motivation bi nga wone ak ni nga wane danañ ñu pousse pousse pousse ba nga xam ne nii danañ gën a góorgóorlu ndax chambre de commerce yi ci lu état la nekk te lépp lu mu xalaat ne état war na ko def rek dañ ci taxaw kon ñu ngi lay gërëm leen sant. kon kàddu yi nga xam ne sëriñ boobu yëkkati na ko ci forum bi nga xam ne moom lañ doon amal ci chambre de commerce yi lépp rek jëm ci foire internationale bu Kaolack ndax bés bu bës bu nekk daañu amal benn forum boo xam ne dañ ciy jël benn thème bu am solo waxtaanee ko. donc mu nekkoon euh, tey jii li ñu indiloon ci euh, foire internationale bu Kaolack di xibaar yi nga xam ne mooy bàyyeekoo fii ci quatrième édition bi ci Kaolack ci cœur de ville bi di fi amee du 25 janvier au 10 février ni ngeen ko gisee ci image yi xam ne ñoom ñoo di euh, Kaolackois ñëw ci foire bi di ko visiter waaye di jënd ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi exposé ñu leen sant bu baax di leen gërëm ci teelu gi dig leen daje ëllëg incha allah ci yeneen xibaar yoo xam ne day bàyyeekoo fii ci foire bi ci ni nga xam ne noonu la ko nit ñi di visiter. jërë ngeen jëf